waaw d'accord bon d'abord euh, man je parle d'abord parce que c'est un c'est un dossier c'est un projet qui devant la justice euh, je parle sur des principes xam nga euh, la législation carcérale parce que le président de santé ko ñëpp euh, xam nañu ne dafa nekk si loxo yoon législation carcérale dafa am lu mu réglementer c'est-à-dire que euh, les les les correspondances soo nekkee dans la législation carcérale soo dee bind nit lettre par exemple ak ku mu mënti doon ah mu nekk sa mbokk sa jabar sa doom sa rakk ak ku mu mënti doon sa xarit nga bëgg ko bind lettre dafa am fu koy jaar soo ko bindee lettre bi dafa am fu muy jaar mais dañuy gis ni dans cette procédure la l'huissier instrumentaire ba nga xam ne moom moo yoroon mbir yi euh, règle yooyu législation carcérale tëral respecté wu ko parce que le président Ousmane Sonko fekk ñu ko këram mu toog ah. Mm-hmm. suñ ko fekkoon këram ñu jox ko ko mu bañ. bu boobaa le le ba va va noter refus de prendre loolu l'huissier yoon may na ko par exemple l'huissier su ñëwee jébal la kayit nga bañ ko jël dafa am benn mention bu muy def si si kayit bi. daf siy def refus de prendre. su ko defee juge bi su gisee lee danaa xam ni kii kat jox nañ ko mais dafa bañ jël. loolu lay def mais huissier bi deful loolu. Mhm. est-ce yaa ngi ko dans les faits jëm dem nañu foofu mais en réalité fi ñu waroon dem demuñu fa. fi ñu waroon dem le président Ousmane Sonko la nekk fa la nekkoon. foofu la nekkoon actuellement mi ngi Cap Manuel donc ku ko bëgg a kii xam nga fooy dem si ko Sébikotane Sébikotane y a un service de greffe foofu ngay dem notifier suñ ko fa defoon din ko jot mais malheureusement la législation n'a pas euh, l'huissier dans cette affaire-là n'a pas respecté cette procédure et sur un autre plan aussi bon je pense que cette affaire la comme ni nga ko waxee effectivement c'est la première fois c'est un revirement jurisprudentiel mu ñu saisir ko une affaire mu kase ba pare renvoyé mhm. c'est un c'est un revirement jurisprudentiel inattendu d'ailleurs que personne n'attendait on attendait que mais, le mais, juge qui peut figurer quand même si si le la sphère ju, ju, juridique c'est oui, normal soo déggee ñu ni revirement jurisprudentiel que musu fi am à chaque fois Cour suprême soo daan jël certaines décisions en matière électorale parce que matière électorale c'est une procédure urgente en fait mm. parce que les délais sont très moo tax c'est une procédure très urgente parce que le droit euh, du président Ousmane Sonko à être électeur et à être éligible c'est des droits inaliénables qui sont protégés par la constitution mhm. est-ce que vous comprenez mhm. nga xañ ko droit am daa ngi ko yaa ngi koy andil benn grief mhm. moo tax normalement le le juge devait normalement euh, trancher cette affaire définitivement mais puisque bon ku nekk mën nga am sa xalaat il n'a pas assez d'éléments d'appréciation peut-être am na mën na am en fait que loi bi su la joxee pouvoir nga évoquer benn affaire rek parce que jox na laay élément d'appréciation ok parce que euh, am na matière yu bëri juge bi léegi yow da nga jàpp ne c'est parce qu'ils sont pas libres que non ku nekk mën nga am mën nañu mën mën naa ko ji mën naa mën naa jàpp ne c'est chaude naa jàpp ne c'est une patate chaude le juge hmm. peut-être n'est pas allé au bout de sa logique d'accord man mën naa jàpp ne le juge n'est pas allé au bout de sa logique normalement il devait trancher définitivement cette affaire-là mais peut-être pour des raisons X ou Y je ne sais pas. mais normalement pour mu trancher boobu loolu loolu yow yow sa bëgg-bëgg la. mais moom il a aussi les prérogatives de de ne pas trancher. loolu yoon may na ko kon. voilà moo tax ma ni. Mhm. li fi am ni mhm. xam nga ñun nous sommes des acteurs de la justice. du man kese maa ko wax y' a okay. y' a beaucoup d' acteurs de la justice qui ont constaté ça. que mhm. c' est un revirement jurisprudentiel. revirement jurisprudentiel mooy. dafa am si si bépp discipline par exemple discipline droit administratif nga xam ni euh, le droit administratif c'est un droit profondément juriste jurisprudentiel donc droit la ba nga xam ne amul lég code amul législation juge bi si si xam-xam ak si interprétation moom mooy teg ay yoon c'est nag su ñu amee benn logique ñu ni lii mbir mi nii nañ koy doxalee ñu koy appliquer pendant des années sur des années ou bien des des dizaines d'années nga xëy benn jour def lu wuteeg loolu la ñuy wax revirement